ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak loué ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk ak seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez wala sax créer sa alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na Moussa Dioum. Moussa Dioum ban. Moussa Dioum. moom la. moo na maîtresse Moussa Dioum nag gars yi waa parcelle yëpp parcelle ne moom mbër boo laaj mun la moo fi dàq bëri dañ ko dul wax ci kaw nag. loolu loolu loolu. ma jox télécommande ca kaw. loolu loolu loolu. Cheikh Abdou Khadir Jeylaani puy. Modou Lo. Moussa a ngi nii. Modou Lo. Moussa Dioum a ngi nii ma ne Modou Lo. waaw. <laughs> Boucher wuyu la. Boucher Boucher da ngaa neex Boucher dëkk bi yaa fiy toj fan yi da moo tax ma dugg ba fii bi benn wax. mais li nga Sidi Diop barki démb ba aj samay tànk. Ah, waaw lan taxawaayam ci bëre. waaw xeexam ci bëre. waaw lépp Moussa Dioum la. maanaam bu taxawee. ku hmm. seetaan Moussa Dioum dëgg. ku seetaan Moussa Dioum ba muy takk ba muy def mooy Balla Gaye am na Balla Gaye doon takk bu njëkk. ba mu door tudd xam mu daanu. loolu Moussa Dioum ko njëkk a def ci làmb. Hmm. loolu Moussa Dioum ko doon takk. Hmm. taxaw dëngalu. Hmm. mel ni ku lay xool te du la xool ci suuf lay ba muy bëreeg Mamadou Diouf Sogaas. waaw mel ni kuy xool ci suuf te du la xool. ba muy jox tonnerre première defe tam. loolu yëpp li moo doon def nii yëpp Moussa Dioum. waaw waaw Moussa Dioum la maanaam dafa def ci lamb loo xam ne kenn mënu ko fa naanaan la naanaan la. mais nag làmb baax rek. barke alxuraan Moussa Dioum dama ko doon seetaan dafa yàgg Moussa Dioum Moussa Dioum ba koy seetaan di ko bégee dafa Moussa Dioum ba muy fël ay ñoom Modou ay Balla Gaye fëllu ju barke alxuraan. Moussa Dioum banaan nga njëkk a bëre. deux mille génération nga wala deux mille trois presque. 2003 Moussa Dioum moom. mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais Lamine loolu loolu du dara loolu ak àdduna ñoo ànd. ah Modou Lo boo gisee Modou Lo Modou Lo da daan ñëw ci ñun di contact si si ñun. bu Moussa na bëgg a bëree da daan ñëw ci ñun xam nga. ndeysaan mu nekk ku bëgg a nag am fulla looloo ko may lii mu am. Balla Gaye tamit vraiment wallahi azim man sequma ak benn mbër lu ñaaw mais Balla gay tamit. premier jour ma gis ko yàlla moo ma tiim barki Seydina Mohamed moo Lo moo ma wan Balla Gaye ne ma mbër ne ma kii laa bëgg a bëreel ma ne ko kan kii mu ne ah ma ne ko kii du guddi yi ngay bëreeg moom kii fi ñu toll nii même bu dara dalaa ëpp doole. parce que nekk nit koo xamante ne nii te loolu wax naa la ko sa benn interview. dëgg la boobu musuma gis musuma gis Balla gay bëre mais jour bi boo ko njëkkee gis muy bëre. damaa mhm. xam ne kii même waxuma doole ji mais dafa nekk ndaanaanu bëre. Mhm. gis nga làmb ji làmb ji boo bëggee dégg-dégg man ñii ñooy bëre man naw leen damay wax buuseer may ma rek Modou Lo mooy bëre man naw ko ci bëre. bala gay bëre man naw ko ci bëre. Mhm. ñooñu dañoo mën a bëre parce que dañuy bëre ba seen bëre li ci ëpp xam-xam la du doole. ah. yow bëre ñoom dañuy bëre xam-xam. xam-xam la ñuy bëre de. bëre xam-xam bëre doole de. ba pare te li ñu am nii li ñu li ñu li ñu am nii. Euh, gaa yàlla suñu borom ànd na ci mais tamit am nañ mérite parce que sonn nañ ci làmb xam nga am nañ qualité mbër te ñoom fonk nañuy bés. Hmm. parce que Ronald Ronald Ronaldo la Messi rek ñoom ñaar. dañoo fonk bis Ronaldo rek. mais Lamine Lamine Lamine ah. buuse boo gisee ma dugg buuse dafa baax non dañuy waxtaan nii rek bu question la dara mais mais gis nga damaa ñëw Amérique ñu daje fa mu jàpp ma eh, jàppal jàppal temps ma ne ko waay bàyyi ma waay mu ne ma mbër toogal liggéey fii nii naa expliqué te boobu suñu sax gisante mais ñu mel ni ñu mus gisante fukki at ak juróom hmm. mu mu nekk nit koo xamante ne ni nit ku modeste la lépp lu mu la moo nekk ci moom man yow xam nga ma man du ma man ma gaaw a man du ma gaaw a du ma gaaw a dugg nit man lu sama yow xam nga ma Lamine man lu sama yoon nekkul sama yoon nekku ci. walaay mais tamit am na am na am na am na yoo xamante ne ni nit. bu ko bu bu ci nekkee. bu ci nit nekkee dañ ko encouragé. barke alxuraan nekk bu bu buuse mi. dafa jar a encouragé. parce que tey même bu dul dara mu ngi sigil làmbu Sénégal mu ngi ñuy mu ngi sigil mbër yi. Hmm. mu ngi wan ne mbër yi làmb du làmb rek nga mën a amee teraanga. Hmm. mbër da ngay gëm sa bopp. boo bëriwul it nga dem defi leneen. parce que mm. làmb mën naa neex tey suba du neex te du làmb ci ñëpp la mën a neex. ndax mm. cent personnes yoo gis ñaari nit la ñuy gunge. Mm-hmm. waaw loolu de damaa bëgg nga dégg ko. man bu fekkee bëre bëre jàppal bu dee fekkee jàppal bëre kaj temps kele sur kele barki Seydina Mohamed sañ naa taxawaat ne amul ci làmb ji ku ma dàq bëre. dëgg la. ah Gora Sock Balla Gaye Balla dafa mën a bëre. kii dafa mën a mais dafa mën a bëre. mais Balla Gaye ci boppam barki rasulullahi azim day taxaw ne Moussa Dioum daanaanu bërekat la Modou Lo dafa mën a bëre te day taxaw ne Moussa Dioum daanaanu bërekat la Issa Pouye dafa mën a man ñi ma bëreel tey jii nii tey am na loo xamante ne nii du waxu ay interview mais tey ñi ma daan ci mbapat tey su ma la waxoon ñi ma daan limal la leen ñoo xamante ne ñu ngi biree ci làmb ji danga nga naan ah ay mbër laa la ay champion buñ ma masaana gis su ma ñëwee ci làmb dañ may wan ginnaaw <laughs> wallahi azim dootu ñu dugg ci di bëri. dëgg bu mës a man dama daan comme regret nii mu daan def noonu laa daan def. may dem faas bëri tas mbapat mi. mu jeex ma dem saf baar taj ko. mu jeex ma jubali caaro yi. te loolu balaa nga mu la doon leer nga woo bala Gaye numéro un mi yor Balla Gaye moom sama sant dëggantaan lay jaar bu ñëwee raama Moussa Ndour. góor soog de nee na parce que xamante ne. na ma yaa dàq soog. góor a sogoog ñoom ñëpp moo tax lan la gisoo Franc lan moo tax mu mën a bëre Franc léegi lan moo tax mu sonal gaay gis nga nit du jàngal bëre xam nga kat nga jàngal bëre waaw ki ngay daan di daan di ko daan ba mën a too daan kooku yaako ko jàngal bëre mm-hmm. dëgg la yaa may dégg dëgg noonu mm-hmm. ay góor a soog ak Franc yëpp dañoo jàng ci mën bëre mm-hmm. fajar gi dañ daan ñëw di kon góor a soog bokku ñu woon écrit mais man dama nekk nit ko xamante ne ni aw ma problème yooyu soo ma nee ayca ma ne la jàppale la xam nga nga ñu bëre àdduna amul solo ñun ñëpp benn lañ parce que làmb moo ñu tax a jóg ku nekk soo sañoon fi nga dëkk bu jëlul payit du jël ndaare. dëgg la te làmb ji ñun ñëpp dañ ko war a rafetal. waaye moo ñu seet ni mu gën a rafetee. moo la ah. te nga Messi ak kii. Messi ak ak kan la beneen suur. non Messi ak Cristiano Ronaldo yàlla moo leen ko may. loolu ñëpp nangu nañ ko. man loolu loolu loolu loolu ah man maay Ronald man man maay Ronaldinho man maay Barthez maay Ronaldinho Barthez nu mu tuddati sax tur bi Fabien Barthez bàyyi ma waaye nga wax ma Barthez bul wax Fabien Barthez maay Ronaldinho mais Bousse après naa jël Lamine sa numéro dinaa jël Lamine sa numéro sama numéro yow dama ko fekk après naa naa ko jël ci non dama koy dama koy jël ci Lamine parce que am na loo xamante ni du waxu émission parce que man ku man ku la ku tuutal doomu aadama wala ku koy wax loo xamante ne nii lu ma bokk la man bëgguma koy xeeb doomu aadama buuse lu muy def dafa neex buuse dafa neex barki Serigne Salim Mbacke dafa neex man buuse laa wër ba fajar man naan bërigo xaaj soog a tëdd sama doomu ndey la xooxuma yow xeexuma ak yow loo dugg damaa bëgg loo dugg loo dugg téléphone ñu waxtaane ko lu ci sama xalaat dinaa la ko wax lu ma la ci mën a jàppale ma jàppale la ko barke Serigne Saliou Mbacké te yoo xam nga ne dama neexu ba bés bés boo feccee ba barke Sëñ Bamba loolu Lamine moo ñu koy defal moo ñu koy defal en direct one sam dix dar barke Serigne Saliou dégg naa Beganaal am na keneen koo xamante ne ne dafa bëgg wax ak yow mais boobu surprise laa koy defal. ndax boobu yaa ngi wuyu téléphone. xaaral moom laay woo nii bu bu décroché rek. rek am am am. Zarko Diallo. Mamadou Lamine. Mamadou Lamine nu mu demee. lu bees. jaajëf buuse yow. buuse wuyul. nga buuse. sama numéro. 77. 372. xamul numéro direct bi a ngi koy jël. bi sax bi jàpp ko. moo tax mu ngi koy WhatsApp message mu WhatsApp. wuyul saa Zarko ko ah le lion. moo ragal de barki Serigne Sali est xam nga ne yow tax ma dugg. <laughs> doo ragal. doo wuy ma waxuma loolu. man li gars ragal a wax du ma ko wax de. gis nga bëri na bële ah bëri na bële duma tudd turam fa lañ koy fekk indi ko yoole wan ni ko ni du waga muy jéem a teg xelu boppam sib nañ lépp. xoola li Moussa Dioum wax noonu rek. xoola loolu laay wax du ko wax sax man la su mbaay di ko dégg. mais xoolal ñu xamal ko ne ñun lijjanti wuñu ko. sëriñ Bamba la ma Demba Paate nee ko xoolal yow saa moom da nga doon tund danga nga doon waaw lekk sa bëgg di di sa kaani. yaa may dégg kon faale woo non Lamine yow nëtëra rek buute xam na fu waxee. buute xam na fu may waxee baax a baax. nga jaaru kalaasu nit yooyu ay jàqkatu ay jàqkatu lañu bu leen sax lijjanti. yow li nga war a def def ko bul ko toppatoo loo war a poñe lu nekk da nga koy poñe kooku mënu dara. kii. Hmm. damaa yóbbu mbër. Hmm. damaa yóbbu mbër estaat mu tëbali ko. Hmm. non wuy ma accul loolu. yow accul loolu. xam naa baax fi nga waxee mais accul loolu. mais dama ni la. maañ xolal li ma wax xam naa ko. gaynde la man xam naa ko mais gis nga gaynde ba pare nitu dëgg la. seen seen business boobu. fan ye def naa benn sortie nañ la ko génneel. li tii bi def naa benn sortie ñu lay bëgg a jaxaseeg Modou Lo ma taxaw ne li nga wax da nga koo mën a xaritu Modou Lo léppam nga mais da wax dëgg. mais du deñ yow nit sax xarit da koy wax dëgg mo xam ne kii am na am na sax nit kuy ànd ak man di ma wax dëgg. waaw mais Sénégalais ñoo ñoo. Lamine hmm? mi ngi jël. ma ne leen Zarko wax dëgg la. moom dafay ànd ak Modou Lo te yàlla tax àndul ak moom ngir dërëm. moo tax bu wax dëgg soxlawuma dërëmam mais terewul dama koy wax dëgg bu dëgg jotee dama ko koy wax. barki Sëriñ Bamba maanaam boog mooy lan Sénégal bëgguñ koy wax dëgg booy wax dëgg rek dañ naan dafa soxor wala dara. mais du soxor man loolu laa mënul loolu laa mënul dégg loolu laa mënul gëm sama bopp. yow kay nag eh da ngaa am lamb ci paar lamb ji xaaj bi yëpp ay tapet lañ. ñëwal jël sa te noonu lay demee sax ma Lamine may waajal benn bagage. noonu lay demee sax dama lay jox système. ah. del lekk foofu di lekk fii moo gën a gaaw. dafa leer. fii fii buuse. fii dañ koo poñe dama ni wala wuyu ma. parce que dañ koo poñe ba pare. parce que nag dama lay wax benn affaire de. Uh-huh. ñi des ci làmb ji nii. Mm-hmm. gaa yi ci tekki ba pare. Mm-hmm. kenn ku ci taxawaat gëw ma kenn ku ci taxawalaat R plus 4. amul. yow nag boo lekkee foofu di lekk fii xaalis bi dina daje. <laughs> te noonu lay demee sax lay <laughs> boo dégg barki Serigne Saliou sëgal ma rayal la teñ <laughs> amal amal amal foofu cinq mois ñëw fii bëre dama ama ah, cinq mois dem. sëgal mu rayal la teñ sëgal bi mbaxane bi. soo waay nee na gàllaaj moom bopp bi daa ñoo béjjaawal bopp bi ba sëggee damay kalaate loolu la mënuñ ci dara nañu béjjaaw du du fenn mais kontaan naa bu wér kenn loolu laa la bëggoon jottali rek ba ci Serigne Touba naa jël naa jël sa numéro si Lamine woo laa bëggoon dégg di la xamal ni gis nga abo boobu def ko li turu moom ci boppam mooy ñëwaat daw sa ginnaaw barki saali Saliou dëgg la dëgg la ma xamal la lenn nag nga xamal ko ni yaa ko gën a doon Baay Faal gis nga bépp bu doxaatee bu doxaatee ba tegaat sa tànk ci yow ah jëlal lépp teg ko ci suuf wan xamal ni ko ni àdduna du lii yow ak sa li nga yor lijjantiwu ma leen mais terewul cër bi moom moom da nga koy jox. non Zarko wax ji lool loolu de xam nga wax ji lan la xam nga wax la. non bu ko leeral sax yooyu lépp. waaw ëmbal lépp ko yow loolu après dañ koy ngoobu Mbege Lamine euh, boo toll yow. fu ma toll ci yow. waaw. yaa kan yaa ngi Lac Rose. man ak Lac Rose ci toll ak loo ci wax. ah waaw Jimbo kay. Jimbo mooy wax mu lettu ñu bokk wala mu firi ma. mu bi la ngoog sama copain. jërëjëf jërëjëf Bakary jërëjëf mais yow Lamine. waaw Jimbo ne mu létt ma boog wala mu firi war a safal instant bi. ne ko mu toj bagage nag Jimbo buñ ko xooliwul patel ko du neex de. ne ko mu toj bagage am na benn benn benn benn bu bokk seen staff bi daal buy liggéey CTO yaakaar naa benn pa. tey tey. ah ah bi faj yi. waaw. gaal yu nekk démb nee na Lirou Diane baalal sar ko mu ne du la baal tant que ñëwoo bëre si. <laughs> Lirou Diane sama man maa fan liiru jaan man sama bopp maa ko fan mais dafa dëg dafa dëgër bopp. ah nee na dara baal tant que ñëwoo président. mais nee ko nag sama yow sama ñëw ci yow moomu la départ yow doxal loolu. am na ku wax fi yow ak doomu dangu de. non non bëgguma loolu. i bëgguma loolu yaa ngi eh, Lac Rose bari Serigne Saliou combat bu mag. moog Lac Rose wala moog Malick Niang. Mariña da koy rey de. Ah, yaa ngi déggaat ah, yaa ngi déggaat kii waxaat na la ko te ay nit a ngi nit ñu ngi la koy wax. moom ma yaa ngi ma mi ngi leen dimbali rek. yaa leen gën a xoolal xoolal di dimbali. Hmm. wax. da ngay neexal ah. ñaar ci loolu la fa nag ndax dañuy gën a <laughs> yow loolu Lamine Lamine yow ñun ay cours lañ doon encaissé loxo jaaxaluñu. wax boobu wax naa la ko ba taay. wax ma leneen dix personnes xeexal dix. wala nga jox ma wala boo mba eh, booy baaxul nga dox Forza. Forza de. Eh, Forza. sacrifier sa bopp. waaye ah, Lamine yow génnal ci coow loolu waaye eh nga ma bul sacrifier sa bopp ban sacrifier sa bopp. Zarko moytul Forza. billaay walaay Lamine buñ ma joxoon Forza ma wan ni ko cuune la lu leer laa la. Forza kay di cuune Zarko yow. billaay buñ ma ko joxee ma wan ne ma xamal ma wan cuune la. Lamine yow ñun ñun ñun dañuy bëre dañuy bëre xeex te ragaluñu xeex ragaluñu ku ñu dóor dañuy bëre dañuy xeex. yow ak doomu daal. waaw man ak doomu daal loolu du combat waay Lamine. da nga benn. ah day dóor moom dóor na lu ma cinq. dama ko mën dama ko mën ba pare ëpp ko xaalis bu benn. non ko ma ne yow tamit mënoo bàyyi ko nga yaay tam. non non yow kooku maa ko ba pare ëpp ko xaalis du benn. mais buur du benn. sant. waaw. waaw. si ka foire si ka foire soo gën Lamine foo nekk xaaral laa invité di Lamine wër rek. barki Serigne Sall. ñëwoon naa fa sànq wa. non jëlee ko mu ko de. Lamine Lamine sa commentaire yi rey. <laughs> yaa ngi man ñu ngi nii si kaw foire excellence sam naa Sidy Diop la ñu gis fii rek xaw ma sax boo xam day répété nag. non. na wax yow. dama ni. waaw. man daal sa waa ji la su mu wax mu wax ma waxu nit. waaw ñu taxawal léegi combat. waaw. am problème yow daal laa fi décidé nga moom. waaw mi ngi noonu la nga taxawal léegi ñu lijjanti ko vite fait kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen moom Lamine a ngi waa Lutte TV man ak ñoom a ànd lu mu maa ngi ñëw nag maa ngi ñëw buur ana sat ko dem na mobile la ñu nii lépp yow bësal rek way ana sa buuse buuse la. mbër bi moo ëpp tànk ci àdduna. ay waa ji la. waaw boy boy Sidi. allo. vraiment moom. allo Sidi. Lamine Seck. Mister Mobile. waa foo ne nii. lan nga mën a tuddee Mobile. Hmm? war a mobile amatul sax. mobile non. nga gaaw rek la nga. ah feebar nag tey de billaahi. station nga tudde woon sa bopp station mobile. waaye mobile sama mag la. xel. mobile sama mag la. sa waay ngi ni ah yow mobile 2 nga naa yow mobile 2 nga fàtte woon naa. sap ci ligne le grand faq man waaw. Baye Ramdan wax na benn affaire nga dégg ko. waaw. Sénégal la Sénégal daj. waaw man bonuma xaw ma ko bon. mais ki nga taxawal bokk na ci ñi gën. kan buuse. parce que Serigne Fallou Mbacke ma yaakaar. musuma lekk juróomi dërëmu buuse buuse bu amee lu muy maye na ko may ay mbokkam. soxla wu ko dërëbam. dëgg la yonenti yàlla Muhammad laa billaahi wallaahi wa taalaahi bokk na ci Sénégal. Boucher saa neen bokk nga ci ñi gën Sénégal. moom moo ma moom mii di wax sama di wax ay mbaax mbaaxu jàmbur mobile xale bu ndaw la demagul fenn ci làmb tollagul sax fu muy amee dara ci làmb ba pare presque dama koy tuddee maye kër maye. Hmm. jël kër lumb may ko ay ñu néew doole may da leen koo loolu man ñemewu ma koo def bu ma ko amul kii ñemewu ko man dinaa am benn kër kese maye ko. man de mu ngi nii def ko. moo gën xol. day seedal nit ñi lu baax rek mais moom moo gën nit ñi. waaw loolu mbaax la moom. ko loolu la moom. billaahi wallaahi wa taala kenn gënul kooku nga àndal. dëgg la dëgg la yëpp damaa doon dugg pour nuyoo rek te damaa xaw a feebar gayaan moo tax billaahi. waaw looy def ci néegi heure bi. néegi loo ciy def heure yi néegi. non damaa wérul damaa jàngati. ah waaw foo ne xaw feebar gayaan damaa feebar. da feebar. si ndoroom nañ ko léegi monument de la renaissance. ah. Bour Sine monument monument de la renaissance lañ ko romb. Hmm. waaw. na ko yàlla defal jàmm. moo yéeg rek. da koy wute yàlla na ko am. ah baax na. da ngaa jóg. yàlla baax na ñaanal ma rek. ñaanal ma rek lépp dina baax incha allah. yàlla na nga wér ak ci jàmm ak salaam ñëpp. incha allah incha allah. ñaanal jàmm. Hmm. waaw léegi yow. fii de nee na ma airport. Zilo. Zilo. Zilo nee airport la may may quoi nee na ma wut airport pour may dégg. léegi yow damay rek. Ah. airport damay réer sànni ko. boo ñëwee ba ci buntu gendarmerie Fouad. waaw rafet na waaw bu ko. bu baax a baax. Ah. ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak loué ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk ak seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez wala sax créer alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na